Euh, plus de ñaata million baas bii gëj ci àddina ndax lan bëgg a wane li papaam bëggoon li papaam doon waajal li papaam doon ndamoo lépp mu nekk ci loxoom ji fépp fu taalibe Serigne Béthio ne fépp fu taalibe Xaadimu Rasuulu nekk fépp fu képp ku gëm Serigne Touba gëm Serigne Mountakha ndax moo ne nag moo fi toogal baaye te képp ku bëgg yoonu murit képp ku xam ne Serigne Touba rek ay dëgg. tey ndamoo Serigne Touba. te màggal gi rek tax laa. ma États-Unis ndax xamoon naa ne làmb yàgg yàgg dinañ sooxee. muusa ma jëlee ci làmb dem sax xooli leneen. tey li may gis ci kii maa ko xam man. képp bu ëllëgee di ngeen di teg seen bët barke Cheikhul Khadim li fi Serigne Béthio bàyyi lu ko raw da ko téye sa loxo barke alxuraanu karim bi man maa la ko wax. yaru nga baax nga tabe nga yéeme nga Serigne Béthio tabe bi mu tabe woon man tey pour man dootuma ci àddina waaye jël nga ndam li waaye. waaw waaw barki Serigne Bamba jël nga ndam li démb laa ko gis waaye yaru na yaru boo xam ne gisatuma ko ci àddina man kii tey bu ko neexoon mel lu ko neex ndax baayam def na fi lu ne baayam kenn du ko mës a mën ci ci ci yoon wi déedéet loolu maa koy wax ci kaw fu ne wax naa ko fa États-Unis laa ko commencé ba fii kenn du mën baayam ci yoon wi amul kenn ku koy mës a mën ci yoon bi barki Sëriñ Bamba moo mën ci màggal waaye tey jël na révélation bi kii tey soo leen gisee li mu def hmm. ngeen xam ni mi ngi mi ngi ci ndax lépp lu war a dem rek foog mu am ay dog-dog waaye Sëriñ bee lay leeraal lépp ndax ki ànd ak yow dafa nekk jamono muy Sëriñ Muntaxa Mbàkke moo ne yow la kan moo koy dindi kan moo koy dindi laa wax barki Sëriñ Bamba Mbàkke Xaadimu Rasuul laa la wax billaahi man sax samay doom ci yow la ñuy jëbbal. dëgg la aw góor. aw góor kay jëm aw góor doo ko rëccu de ku xam Serigne Béthio xam ni yoon wi rek a ko ñoroon. te yoon wi rek la bëggoon bëggul leneen lu dul Serigne Saliou. maa ngi koy soog a gis nag li tax ma ñëw fi lenn rek la cofeel bu ma amoon ca baayam moo tax ma ñëw fi te xam ni tey mooy dëgg-dëgg baayam damaa bëgg ngeen ubbi seen i bët te xam li may wax bu baax. barki seexul xaddiim yi laa la wax képp ku ko fi romb di seeti leneen wala ngay def leneen bis dina ñëw nga rëcc ko mat sa loxo di jooy ndax mooy Serigne Saliou Mbacke mooy Cheikh Béthio barki Serigne Bamba Mbacke mooy Xaadimu Rasuul jamono ji ci waa kër Cheikh Béthio dégg dafa doon ko barki Serigne Bamba te téléphone bi kum ci dugal minimum minimum deux millions personnes dana la seetaan ci bis boobu ci Instagram am ci YouTube ci Facebook am ak ci Sénégal mu jël engagement nag ne sëñ Sall Gueule Tapée laa àndal te dinaa war réew mépp ne moom laa àndal. wax na ma ko démb. naru mu woon a màggal si ren waaye moom dina tax ma dagg bii jóge Amérique ñëw màggal si ñëw ci këram gi dar ko di ko topp di ko sinap di ko dugal ba àddina sépp xam na ci moom laa yëf loolu nag su ma ko waxee di sama nawle di sama wëllëre ñëw fi ma noppi du ma si gor dama la koy wax daa jël ci yow ay engagement ngir jëm ni Serigne Touba yaa ko fi indi yow képp a tax mu ñëw muy jëmm ju baax di taal bi Serigne am sa mbàkke wax dëgg yàlla mënoon naa demi feneen toog fa ndax fii fu waay na Sëñ Tuubaa waaye daa bàyyi ñëpp ñëw ci ñu ngi la koy dénk bu baax sa yaram jëmm ju baax ngi nii ku gore ku gore ngi nii taamu taalibe sëriñ bi nag sab sëriñ la fii lu fi waaye def Sëñ Tuubaa goo ko defal ku am moo la may ku ñàkk moo la xaj Ahmadu borom jàmm la ca bàyyi a koy donn ñun dépassé nañu di way Cheikh Béthio di loolu force la kii mooy Cheikh Béthio duñu ko werante amul xaaral ma dem ak xaaral ma ñëw duñu ko maslaa duñu ko neexale dañu koy wax ndax loolu la yàlla ndokk nag di nga am ndam di nga am sag kii nga àndal billaahi bis dina ñëw nga rëkk ci sa drapeau ta kaw ne kat ba muy door di metti ñu njëkk ñëw ci laa bokk maa ngi lay ñaan sa engagement bi yàlla bu ci fii ci réew mi ak boo delloo ci réew na ñëpp xam na yaa ngi ci moom doo ko fii doo ko fu jëm yàlla sa jàmm yàgg jox ko mu wax bismillah maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp engagement bi ma jël man maa ko jël man Ketchup maa ko jël hmm. damaa bëgg yéen ñëpp ngeen déglu hmm. démb ba tey site internet yaa ngi may woo Dakar Buzz ma bàyyi ma fenn seen Buzz ma bàyyi ma fenn dëgg la may wax dafa dëggu ci man hmm. ñëpp ñu ngi may woo naan ma dañoo bëgg interview ak ma bañ leen képp ku bëgg def ak man interview na ma fekk sëñ Salfal Tap dëgg maa ngi koy soo a gis nag li tax ma ñëw fi lenn rek la cofee bu amoon ca moo tax ma ñëw fi te xam ni tey booy dëgg dëgg baayam damaa bëgg ngeen ubbi seen i bët te xam li may wax bu baax barki seexul xadiimi laa la wax képp ku ko fi romb di seeti leneen wala ngay def leneen bis dina ñëw nga rëcc ko mat sa loxo di jooy ndax mooy Serigne Saliou Mbacké mooy Cheikh Béthio barki Serigne Bamba Mbacké mooy Xaadimu Rasuul jamono ci ci waa Kër Cheikh Béthio dafa doon koo xam ni démb laa ko gis waaye yaru na yaru boo xam ne gisatuma ko ci àddina man kii tey bu ko neexoon mel lu ko neex ndax bàyyam def na fi lu ne bàyyam kenn du ko mës a mën ci ci ci yoon bi déedéet loolu maa koy wax ci kaw fu ne wax naa ko États-Unis laa ko commencé ba fii kenn du mën bàyyam ci yoon wi